trois jours ñu ngi Casamance voilà wër nañu tay la ñuy jeexal nag yegg après dem boru Saloum continuer campagne bi alhamdulilah bo ba amul benn problème donc dañu bëgg nga ñaanal ñu aussi pour que campagne bi continuer ci jamm ak euh lool rek modon doon kadu yi kadu nuyo kàddu ziaré ak voilà sakku si ñaan yalla def jamm ci campagne bi ak jamm ci réew mi ñu ngi lay ziare di la nuyu bu baax a baax. nee na mu ngi leen di nuyu yéen ñëpp mu ngi lay nuyu. akiraji mamitay kama leylaalul min ekanka suumee kunke ma kon yow yaa tax tey mu taw mu def euh, def barke bi ak mbégte bi ndaxte gëj naa tawee ni biir Casamance mais bi nga dugg see Casamance ba léegi moo ngi taw sa kaw te loolu mbégte la 이전에 에벨란 라벨무 dëgg na sa kasoo ko dëgg na sa say tànk te sa tànk yi du dara lu tànku jàmm tànku defar kanji sala mo tay o jaa ñu nga tudd fii xam na leen te gis na seen i liggéey maanaam ñu nga tudd fii ñoom Doudou Ka ñoom Ablaye Balde ñoom Angélique ñoom Dieneba ñoom honorable Aimé Assine ñoom ñëpp xam na leen te gis na seen liggéey seen taxawaay ci biir département bi ak ci biir région bi ak ci biir Sénégal anono ah, sing-singi ɓe fene muñ anan ah, fana lo balo beli axulu ah, holo sal ha holo lo han kolim kandu ha son kajakot ɓele humuñu honto euh, bugelo buleeto nee na métti na mais dañu koy muñ ndaxte yoon ngee demee noonu amul xasante amul xuloo euh, ndaxte liggéey bi moo ko laaj donc euh, loolu la am pour yëpp bandi wahande mulelo tata jiba yakumana gela palol emi tawi yoyane euh, mo an o jowba bala jakumande ana ba hajaban lonal ay ummu aji mu bu buggeelo atay nit donc euh, euh, li muy am pour ñaax mooy ñu dëggoo ñu ànd def benn ku ñu ne kii la ñëpp ànd ci ndaxte euh, moom ci yooyu lay dox bu ñu demee ba yëkkati kaddu comme nu président de la république yëkkatee kaddu mu ne Mimi tuure ñëpp dañuy boole seen xol yi ak seen xalaat yi ànd ci gannaaw Mimi Touré ñu dem comme président tamit nu mu tabbee tey mu ne Ablaye Baldé liste nationale mu ne Aimé Assine ak jeene ba ànd leen biir Casamance ñu dem ak ñu mu jël fale au niveau de Ziguinchor Moussa Diédhiou ak ñoom Victorine na ci ñëpp booloo ñu ànd ñi dem ndax ndaxte loolu mooy euh, noonu la mbir mi war a doxee bu kilifa waxee ñëpp dañ ci war a ànd amul naan euh, man duma ci duma ko def duma ci ànd parce que lii ak lii loolu baaxul kilifa waxam waaw la sant ɓaɗaye ɓan ena ohlaw eno omo añoolom amo gene ba añoolom inge bokool ɓanda ajo ko moojak o hanndamo ko suumen nde ko suumen ko suume wajake ajo ko mol donc mu boole ci di Qui de le la comme ni Angélique elle a même euh, homonyme <laughs> au niveau de au niveau de la royauté comme Doudou kanou Balde donc est lay deunk ay domom ñom ba ki mom xaritam la ñom ñom magandor donc la koy deunk deunk xalé yi euh xamal ni ki am ci Casamance ñii njëriñ bu mag lañu am ci Casamance gis nañu lu ñu doxal ci biir Casamance gis nañu lu ñu doxal fan yi maanaam euh, kii di jeene ba mu ne mu ngi la koy dënk donc ci biir dënk boobu dafa mel ni ki yóbbante la bu mu la yóbbante ci président de la république ci doomam yi waa Casamance nu ñuy jàppale waa Casamance parce que moom du wax pour moom rek ni mu waxee ni euh, dafay wax ci turu ñëpp ñoo xam ne ki ñu ngi yore toogu tradition traditionnelle ci biir département bi ak ci biir région bi donc ay gune la yoo xam ne ki vraiment bàyyiwuñu seen gannaaw xam nañu fu ñu jógee ak xam nañu lu leen war